sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna fi. bi naka la. Mame Mbaye Ndiaye. d'accord Mame ñuy waxtaanee agression yi bëri yi nga xamante ni daal dinañu koy nemmeeku ci réew mi mu bëri lool ñu si bëri di dut baaraamu tuuma fi la ci daal di euh, buntu Pikine euh, gis-gis wala jàngat bi nga xamante ni am nga ko ci. non ñun moom buntu Pikine moom chaque jour ñuy fii liñ fay gis moom chaque jour am ñun mënuñoo wax lépp sax gën tey jii nii homme de tenue fi teg ñoom ñu wara a lijjanti dëkk bi gën ñoom ñooy teg seen bët lool noonu ñoom duñ ci wax askamaa ñun ñi nga xam ne ay citoyen rek lan ndax tey jii ñun dañuy liggéey ñooñ tey jii nii liñ nekkee sàcc goog dañ koo jàppe comme liggéey fan yee nit këf na fii même pas ay di matut timis sax jot ay 19 heures billaay wallaay sama moto kii man na maa seede man maa ko dàq ba jot ko fàdd ko mu daanu mais ñu ci topp ba tey kenn jàpp ko mais téléphone lan la këfoon këf fii loolu chaque jour dañ ciy teg suñu bët fii nii bëri na fi torop mais tey jii nii loolu noonu état moo ci war a jóg même pas ñun ndax tey jii nit ki mën naa sàcc nga ñëw feeñal ko ëllëg si bi mën ngaa yor moto mu ñëw booye laa keneen mu jël la nga génn dem ñu def la naka su dul noonu doo comprendre quoi foofu laay waxee non loolu moom état bi moo ci war a jóg ndax ay jamono fii dool na ay jamono guddi gi lañ fi daan nekk mel ni ñu yebi oto di këf jamono yooyu noonu police moo fi doon monté guddi gi après ci lañ ko bàyyi mais fi mu ne nii boo taxawee nii tuuti tuuti boo taxawee man léegi ma won la koo xam ne nii day jël wóor na yàlla. ñi nga xamante nii dañ fiy faral di nekk di jël da ngeen dem ba xàmmee leen. dañ leen a xam bu baax dañ leen a xam. gendarme yaa ngi nii. tey jii koo ci jàpp yóbbu ko boo ko yóbboo police wóor na alxuraanu karim doo ko jiitu fii barke sëñ Fallou. mën nañoo ne looloo gën a yàq li nga xamante ni moo di réew mi aussi. moo gën a ndaw fii buntu Pikine pare it man li may lancé it dëgg la na xañ na it wax sama xalaat rek mais it pare it am na loo xam ne kilifa yi war nañoo jóg seen njaboot ñun. comme lan. xale yu jigéen da ngay gis koo xam ne même pas 18 ans day taxaw fii di jaay boppam barke Seydina Mohamed. 18 ans. wallaahi lazim lu ko gën a mooyee dafay ne. ban heure lañ fii ne. fii la ñuy nekk di wut koo xam ne dañu di yóbbu seen kër pour ñu fanaan fa amuñu fun jëm barke Seydina Mohamed li may wax nii bu dee amul yàlla naa génn fi oto jël ma barke Sëñ Fallou man du ma waxantu. ci xale bu am 18 ans boo demee këram ndax di fa fekk ay waajuram wala moom kese ngay fekk ci. seen parents yaa ngi fi seen parents yaa ngi fi bëri na fi. mais la yóbbu pour nga fanaan këram. am booy boo xam ne ñëw na fi nee na yaayam moo ko wax mu def planique. ñaata at la am bu amee ay vingt ci la yem est-ce que mat na ko sax. barke Seydina Muhammad. amul jëkkër. amul jëkkër. fii mënuñoo wax li fi ne lépp dañuy wax tuuti rek man li man maanaam man boog li may gis man ñemewu ma koo wax man. barke Sëñ Fallou léeg-léeg damay wàcc ma toog damay yéemu am lu ma metti mais mënu ma ci dara. xañ nag yàlla joxuma rakk bu jigéen ma bokkal ndey ak baay mais ma yoroon rakk bu jigéen ma bokkal ndey ak baay buntu Pikine moom du fi teg tànkam waxuma la jaay de mais du fi teg tànkam sax fii baaxul ñun ñu fi nekk ñàkk pexe rek a ñu fi wàcc mais nekkul suñu coobare bopp wala dara mais état bi na xoolaat dëkk bi bu baax a baax a baax a baax li war a jóg dafa bëri maa ngi jéegulu nag waaw di la nuyu yow nag borom baax nga ak sama baay faal bi ah